waaw ñun dañu mën a jooy dañu gis nga tëj gi sagar. ay na waaw tëj na. faram ñu ne fii yàlla leen mouchoir mouchoir. non non indi leen mouchoir mouchoir rek déedéet su ko def su ko def mun naa bàyyi bàyyi mu waat. c'est l'émotion. am mouchoir yi am. الذي أحملنا حمل الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بركاته وجاهه ونعم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الكرام nee na nañ ko jéem a leeral. wëllëre ab ku ko. yaa ayyuha alladina amanu jàmmay baayam alimati tam mi ci jàmmay baayam dina kumba lawbe bu kumba lawbe ak kumba lawbe kumba lawbe ku buubu kumba lawbe ak sa kumba lawbe kumba lawbe ku la jëy laan góor seena la sa maam maaye te jaaraay yaayam Ablaye Daara Mbaar Maajoor Daara Mbaar Matar Daara Mbaar ak Jaara Daara Mbaar ma jama yaasin daawul ci looro ñàpp Fatim góor saana la ñuy wooyee sa baay sa ma maam Ousmane la ñuy wooyee sa baay góor saanay baayam mbokk baayam sàlli mbeeru ma ca ngën a neen bàyyi Alaaji Samba Jabare yëpp bàyyi fat si kooku ay da buuba yaayam ay da buub Amadou Ndeela mi Sambe jam nan ko Sambe ngent jam ko Sambe to ko sën ko muy may sa Ali Al Ndiaye borom jaay waaw dañuy bàyyi ba yegg bu jàppale ay waajuram ba ñu jóge si jàppale ay mbokkam. dégg naa frère am ma ko wax de. bi ma ñëw fii di ko jaare si. ne ma mbay ay de sàmm. félicitation. yàlla na la jig yàlla na doon sa njëglaay gisuma say waajur fi mu ne nii nii nii nii waaye tàlli nañu ko yàlla nag mooy def li ko neex ne woon nañ bés bii dinañ ko wóoti waaye ñi ngi fi say ndey ngi fi say bàyyi ngi fi say ndijaay ngi fi say kilifay jëkkër a ngi nii ñëpp ngi nii li anglais bi naan congratulation yàlla na la ci yàlla na la ci am yërmande pour laabir am na ko borom këram kenn du moom Abbas Diadio kenn du moom and we are so happy to leen at 73 lañu dugg Gambia ba tey ñu nekk ci 2021 day rafet nga wax ko ci di ngi yaay mooy jël waxtaan ay gis nga sëy Moustapha ay ma yónni rek